accompagner la parce que nag la majorité à l'Assemblée nationale est faite pour accompagner le gouvernement à travailler ñi nga xam ne nag wax moo leen def da ngeen di bàyyi ñuy wax ñuy liggéey di liggéey en tout cas nous vous félicitons di la encourager nga xam ne ni vous êtes un travailleur vous êtes un homme compétent vous êtes un homme boo xam ne il a la confiance de son excellence le président Macky Sall te loolu moo am solo monsieur le ministre wax lu bëree bëri ci euh, li nga xam ni soxla nañ ko dans le département de Tivaouane ñuy félicité son excellence le président Macky Sall parce que nag dans le cadre de la modernisation euh, des cités religieuses def na ko lu bëree bëri xam nañ say attentes ak sa yéene ci département bi mais ñu lay fàttali rek ni soxla nañ des équipements sociaux de base loolu ci mën a jàppale dina baax mais tam am nañ ko benn centre boo xam ne monsieur le ministre pour les handicapés centre bi def na 10 ans ñu ngi ko amee woon dans le cadre de la coopération décentralisée avec des armées boo ñu ci mënee jàppale ndax xale yu jàmbaare yu am jom ñoo fa nekk di liggéey mais nag dafa dafa dafa jafe ndax amuñu ay moyens. monsieur le ministre Tivaouane dafa am extension communale tey Tivaouane am na 33 villages yoo xam ne dañ ko rattaché ci commune de Tivaouane aujourd'hui Tivaouane est à 79 quartiers ñu lay ñaan de quartier yooyu nga xam ne ay quartiers yu bees soxla nañ ay infrastructures. ñu lay ñaan nga jàppale ñu ci bu baax a baax li ci des xam nga xam nañ ndax nag Tiwaawan jàpp naa ni li ko président Macky Sall def sant ko gërëm ko rek moo ñu war mais nag ñu naan daal dañu daanu dañu suuf lépp a jàppale rek ba Tiwaawan nekk une belle ville boo xam ni ku ko ñëw di nga xam ni kat euh, le président de la république def na ko nga taxawul ci bu baax a baax ndax nag foofu dañ koy représenté bu ko ko taxawal te foog naa loolu ci jàppale rek dinañu yombalal suñu liggéey kooku bu baax a baax soit c'est une vie religieuse une vie d'attraction comme j'ai souvent eu à le dire te soxla nañ ay infrastructure soxla nañ ay jumtukaay yoo xam ne vraiment dina yombal suñu taxawaay ko li ci def nag monsieur le ministre xam na ko duñ ci sori en tout cas vous êtes une fierté